bërëb bi nga xam ne moom lañ tuddee kër xaside yi ci complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi mu nekk chantier boo xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bassirou mu ngi ko dénk waa daara xiis Hizbut Tarqiyyah ñu war koy liggéey mu nekk xeetu bibliothèque boo xam ne xaside yi Cheikh Ahmadou Bamba yi rek lañ fay denc loolee liggéey bi door nañ ko ñi nga xam ne nag ñooy saytu liggéey bi ci visite de chantier bi nga xam ne ñu ko doon amal ci complexe bi ñëw nañ ci bërëb bi fekk fii Serigne Atou Diagne ak mboolem ñi nga xam ne ay techniciens lañ ñu ànd ñoom liggéeyu kër xaside yi ñu leeral Serigne Mame Thierno Mbacke moom Serigne Moustapha Bassirou li nga xam ne moo jëm ci kër xasida yi liggéey bi naka lañ ko fas yéene amalee waaye mu nekk liggéey boo xam ne qualité la fas yéene doon lépp loo xam ne laaj na ko daañu ko ci def. ndax yéene daara Hizbut Tarqiyyah moo di ñu liggéey ko liggéey bu mucc ayib boo xam ne day méngoog jamono. bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin euh, Serigne Thierno en tant liggéey bi ci turu Serigne Mountakha mi nga xam ne mooy maître d'ouvrage ak euh, maître d'ouvrage délégué muy Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ibnu Cheikh Abdou Khader euh, maa ngi leen di nuyu di nuyuwaale tous les services ak euh, bureau yi nga xam ne yaa koy coordonné ci turu sëñ bi di sant bu baax nag yàlla ginnaaw bu ñu santee sëñ bii nga xam ne moo seet ci coobare boppam de façon délibérée de façon souveraine mu ne ñu damay tabax këru xasida yi waaye yéen ñi laa ko bëgg àndal muy lu rëy loo xam ne bi ñu demee ba weeru shawal bi paase rek euh, mu ne bëgguma mu weesu ko jox ñu ñaan ñu daal di ñëw tàmbali kër gi nag moom boo ko seetee ci wàllu jamono mooy bibliothèque bibliothèque nag dafa am ay ay ay ay ay ay norme am yu muy bëgg am yu muy bañ li ci jiitu mooy emplacement bi emplacement bi bi ñu ñëwee études yi ñu fekk mu nekk fi ànd nañ ko ak ñi koy liggéey càmbar ko xool ko bu baax waaye yàlla def muy études yu tege ci yoon ci wàllu suuf si topp nañ ko ba ñaari mètre ak lu topp mu nekk euh, un terrain qui est sain amul ndox bu surface bu koy lëjal amul ndox souterrain bu koy lëjal point de vue géomorphologique yi tamit le terrain était encore clean loolu yëpp euh, ànd nañ ko ñoom xool ko ba ci îlots yi nga xam ne moom la ñuy jox il a fallu que ñu amandoo ensemble euh, le polygonal de base ànd ak euh, suñu technicien yi ndax fii aventure la boo xam ne dafa rëy pour que l'aventure ne soit pas aventureuse il a fallu qu'on en collectif mobiliser l'ensemble des technicien de Hizbut pour ñu mën a communiquer ak yéen bu baax bu gaaw loolu kon bokk na ci li gën dimbali ci emplacement bi non seulement on a le, un polygonal disponible au niveau du service topographique, mais nous détenons le polygonal de base de la ville de Touba, euh, de la borne 1 à la borne N. Donc loolu kon vraiment sant nañ ci yàlla di félicité itam ñu fi jiitu def loolu boobu liggéey mooy bu am solo ndax bu amoon tuuti xam-xam moom amul frontière kenn moomu ko soo amoon tuuti loo xam ne luñ ci kii itam dañ koy àndandoo jubbanti rek te te ka koy jubbanti ka am dëgg du mën du mën a bàkku loolu bu jàllee mu nga xam nag ni mooy euh, euh, ginnaaw sëñ bi joxe na bis organisation chantier bi bi ñu organiser chantier bi xam li ñuy def ndax architecture moo jiitu ndax plan bi ngay jox architecte bi pour mu jàllale ko ci ci bureau d'étude bi ñaar da ci am plan bi moom yow miy def plan da ngay xam li nga bëgg def plan mooy mën nga ko defal lu comme mën nga ci def say pexe donc dangay xam li nga bëgg li nga bëgg it su fekkee bëgg nga mu tudd bibliothèque yu mel ne yi am ci àddina bi il faut nga respecter ñooñu la ñu respecté mënul ñàkk loolu kon ñu def ko euh, ba mu egg jàmm ñu ñu rafetlu ko ñu juboo ci nga xam ne suñu équipe technique yi des architectes sans lettres donc ñoo ko taxaw ànd ko ak ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk muy doon loo xam ne dañoo accès ñu ubbil ñu seen bunt J'en profite d'ailleurs pour remercier Thiaw Kandji devant directement euh, sëñ Thierno wax dëgg yàlla ubbeeku na lool envers nous ñu xool euh, ba liggéey ba juboo ci foofu ba am daal lu ñu teg lu mën a jàll bi mu jàllee dem si bureau d'études yi tamit euh, boo calculer leen ne ku mel ni maam Thierno ni ma teeroo mënu ma ko ñàkk féliciter mënu ma ko ñàkk remercier parce que sëñ bi mënoon naa wëndeel bantu bibliothèque bi dóor ko Daaru Xuddoos su boobaa kon du ko gis mënoon na ko wëndeel dóor ko Daaru Minam kon su boobaa du gis kenn ci ci ñi fi taxaw kon jaadu na ci su fekkee loo xam ne sëñ bi waajal na ko ba noppi mu ne ma loolu yëpp sa disponibilité la kon su ma amee tuuti xel loolu mënta bañ a teg ma dafi pexe nag ndax ku ñu dimbali ku day fekk nga sóob ci say loxo. loolu kon am na ci partie étude ba bi ñu si fii ñu agsi tey loolu kon bi organiser chantier bi ñu gis ne ouvrier bi nekk atelier de chance képp soo ko bàyyee ci naaj bi sa pertement la rendement bi da ciy feeñ donc ñu ne kon nañ yóbbaat sa yam bàyyi woo loolu doo ko mën a bàyyi wanag wanag wi ay catégorie catégorie la doo mën a bàyyi magasin doo mën a bàyyi sa bi ñëwee it fekk nañ fi ay ay encombrement sur l'emprise parce que emprise bi moom lu am importance la mooy fekkoon nañ fi ay bâtiment yoo xam ne euh, bu ñu bu ñu ko dundiwul woon du ñu noyyi noyyi du mën a am suñ pourrait pouvait pas respirer tey poumon bi ñu am ñu yëpp li ñu ko may mooy dindi on s'est battu ba def ko moom itam en temps bu bu réglementaire ñu def ko mu nga xam ne kon organisation chantier moom mooy mooy li am fépp rek mm-hmm. ñu respecté lépp def def benn baraque du chantier pour liggéey euh, euh, ñu nga xam ne ay borom xam-xam lañu mën di fi ñëw ñuy mën a jàpp dara ba noppi ñëw gis terrain bi mu bëgg ñëw mayaat ñu war a toogaat ñu bëgg ko xoolandoo def ko ba mu baax kon loolu euh, phase yooyu bi ñu ko jàllee li des mooy euh, ñu wax tuuti kon ci li nga xam ne mooy jëmmi batiment bi bâtiment bi bibliothèque dafa am euh, lu muy nangu ak lu muy bañ te dafa am loo xam ne c'était on l'a trouvé préétabli muy îlot bi nga xam ne moom lañu ñu affecté îlot bi sax sëñ maam Thierno moom dama ko dafa dafa ko étendre loon mais loolu mooy la nga xam ne moo waroon am ndax bibliothèque dafa am loo xam ne quatre côtés yépp soo ko amul ci emprise ëllëg mën nga tooñ mën nga lor boo tey bu ñëwee ci buñ paree bi dem ci plan yi di ngeen gis li nga xam ne mooy plan bi nga xam ne respecté nañu les norme de construction d'une bibliothèque ñi nga xam ne dañu am benn benn benn benn benn génn tuuti bu ñu génn ci îlot bi bi ñu demee ba xam ne ilo euh, bi euh, mënuñu ko mënuñu ko wiñaar dinañ leen won tam nan la ñu duggee ci biir ak ni nga xamante ne moom lañu war a jaar ba lépp xaj ci biir li ci des nag su fekkee am na benn aspect benn côté boo xam ne ñii saytu bibliothèque ci àddina bi boo bu ñëwee bu ñu defee dañu yaakaar ne ñun dañu xam loolu on leur donne un rapport donc loolu kon bokk na ci li nga xam ne ci côté emplacement barab bi lu bokkul ak li nga xam ne mooy li ma doon wax muy l' aspect géomorphologique l' aspect hydrologique l' sécurité ak li nga xam ne PP PP PPR yi prévention ci wàllu risque yi donc kon loolu euh, yaakaar naa ne bi mu jàllee jëmmi bâtiment bi kon dañ koy daal di daganal dañ ko daganale topp ko ba lépp sotti ñu daal nag gis ne li ëpp ci bibliothèque bu ñu koy wax livre moo tax c'est l'argument dominant mu nga xam ne dañuy def nag li nga xam ne moom la ñuy wax le magasin le magasin de de rayonnage ñii di ko wax magasin de stockage loolu def nañ ko en trois niveaux muy rez-de-chaussée bi premier niveau ak deuxième niveau ak souterrain bi nga xam ne day nekk imprimerie ak édition kon loolu bu ngeen xoolee image yi di ngeen ko ci gis euh, euh, bu dee ci wàllu fonctionnement bi ni muy demee lépp luy ànd ak bureau bi buy ànd ak bibliothèque ba ci li ñu toll nii ci jamono mooy Covid 19 bi muy mise en quarantaine le livre qui doit être mis en quarantaine même ay barabam prévoir nañ ko parce que kayit bu jógee fële dafay indaale jàngoro jàngoro boobu dinañ ko naj ba nga xam ne moom du du wàll ñu fi fekk loolu kon ak trier muy àndal ak la muy am def yëpp personnel bi am nañ seen wàll bunt yu ñuy duggee euh, fu ñu jaar foo xam ne ñoom rek ñoo fa sañ jaar public bi am na fu ñuy duggee nga xam ne du yéegukaay yéeg yëpp escalier yi ak ascenseur yéeg yëpp fàggu nañ ko ci mais livre dafa bari ay contraintes tey loo technique soo ma ko joxee day mel ni man dama damay xalaat ne ki may jox loo technique xam na lépp lu war dem ci bibliothèque parce que man sama humidité relative dafa sensible sama humidité absolue dafa sensible tey dañ koy monter dafa koy automate ba nga xam ne moom su ma duggoon avion di dem Union soviétique wala may dem feneen mën nay contrôler fii automate bi daf may wax ah sa immunité relative sa immunité nangam sa sa lii nangam donc li nga xam ne mooy le traitement de l'air daf ko def ci soxor këyit la dangay ngay def say désenfumage sa sécurité incendie yeeg yi mu àndal yëpp bañ na ba béton bii ñuy def nii am na foo xam ne bu fa tolloo am na ñoo xam dañuy wuti ay déshydrateur ça veut dire que ndox miy des ci biir béton bi day am impact ci biir livre bi donc loolu foog nga xam ko yóbbaale ko à chaque fois bu ñu la bëggee yàkkamteloo sax nga bañ euh, boo deful déshydrateur boo demee ba ci sa plancher lépp luy tiim livre moom bu fekkee respecté nga li ñu la wax da koy def des planchers alvéolaires nga xam ne bu ko indee fii ay machine a koy yëkkati yu mag ñoo koy teg ci dal bi nga xam ne partie bi dem livre li ci des on peut revenir au classique mën nañ delluwaat ci ni ñuy defaree kër normal donc loolu kon pour wane rek ne li ci ëpp ci euh, farata yooyu nga xam ne mënoo ko bàyyi moom dañ koy bàyyi nañ ko xel bu baax jéem nañ ci le maximum possible te duñ ko bàyyi ba ba ñuy eggal donc boo duggee kon ci duggukaay bi ba agsi ci euh, hall hall d'entrée bi di nga am ci sa ndijoor kër sëñ bi suite la parce que lu mel ni kenn mënu ko liggéey te te doo am photo donc am na suite am na salle d'attente ak yi mu war a àndal yëpp ci commodité boo tourné ci côté bi des am na li ñuy wax auditorium moom tam am na salle d'attente am sas amaale auditorium ak li auditorium di àndal lépp ci wàllu kii amaale ci biir auditorium diggante présidium bi ak li nga xam ne mooy public bi une place qui est prévue pour la prestation de xasida loolu yi tamit mu nekkaat spécificité boo xam ne ci wàllu sëñ bi léegi nag ci loolu bâtiment bi dafay am xel mooy bâtiment bu intelligent maanaam xel mi muy am la tax nga di ko ko waajal jumtuwaay yooyu da nga koo waajalaate ci tabax bi ndax bu dee bu nit duggee ak bu génnee doo taxaw naa sëñ bi kat yow foo jëlee li loo yor li loolu am na leen lu koy remplacer dafa lu koy remplacer loo xam ne du ñu wax ak moom duñ def moom dañ koy jaarloo fi muy jaar rek bu fa jaaree su pare dinañ xam ne kii daal nu ko neex doxe ci biir su génn jotee itam bu matalee sart yi te kenn du wax ak moom mën naa génn dem gàcce nga donc loolu checking check out la boo xam ne fokk da nga koy liggéeyaale mu des nag léegi consultation consultation dafa bari exigence ndax téere bi bu fekkee da ngay ablé téere day am nu muy doxe loolu itam yëpp ñu ngi koy euh, fàgguwaale bàyyi ko xel bu fekkee dafa amaat benn stock da nga koy bàyyiwaale xel mais ci biir bâtiment bi sooy liggéey suñ la ne par exemple norme norme de base bi si tu mille vingt vingt vingt mille mètres linéaires maanaam vingt kilomètres soo amee vingt kilomètres de livre yaa ngi war a tabax trois mille mètres carrés minimum te man nga bàyyi xel ne aw ma aw ma trois mille mètres carrés maa ngi ci mille neuf mille maximum donc da nga ko téye soo su ma amee deux mille maximum euh, ma jël sama euh, mètre linéaire calculer ko ak sama nombre de livres war naa am kële moom mën na dem ba sept cent à sept cent cinquante livres. 750 000 man maa ngi euh, programmé euh, euh, li may am maa ngi programmé 300 000 350 000 livres donc ñaar la ciy dëkk ni ma xate dama ko ciy fàgguwaale su ma bëggee yokk dama ciy fàgguwaale tam livre su ma ko bëggee yokk fekk fukki at ak juróom donc facile donc ñaari ñaar ñaari critères yooyu mënu ma ko bañ nit ñi dañuy màgg dëkk waaye dëkk yi dañuy màgg Euh, besoin bi day yokk kon donc loolu teniraale nañ ci compte bu baax a baax ci gàttal daal xam naa su fekkee dama ko bëgg a topp noonu xanaa peut-être mu am ay aspect technique yoo xam ne gars yi mën nañu ci laaj ñu mën ci boo bëggee jëm waxandoo lépp du du yomb te soo ma laajee normalement ci ban temps encore man la minimum 12 mois xam nga mu amaat étude technique ferrailleurs yi ngay gis ñuy ferraille et travaille su la base d'un trois de de de trois dimensions donc kooku takk bu ñu takkee sa bët sax nga mën a ràbb kon loolu ba tey gain de temps la léegi kon li nga xam ne moo ci toppaat dañuy ñaan sëñ Touba ci barke maamu sëñ bi taxaw lépp mel na ci tawfeex waaye yaakaar naa ni noonu rek lay demee mbaamu mu weesu kon euh, euh, sëñ bi tey jii yow li nga may laaj moom mooy tax ma wala ëlbatiku sant kii ma santoon ci njëlbeen wax la ne la lii ba bu ñu defee lii ba au dernier maa ñëw la leen yóbbaale leen lii beneen liggéey day taxaw. buñ ma dabee nag kon sant yàlla war naa ko su ma des ko xam de kaay loo fi soxla lii nangam nangam boole maag étudier ngi nañ ko teg fi kon loolu maa ngi jàpp sax li am solo mooy su ma jëlee sama itte boole kook seen bu ñu ma ne un temps tee nga war def un temps tee mooy mooy mooy mooy mooy mooy laay def te loolu mooy li jàpp donc on est déjà dans un gain de temps te y a un autre euh, paramètre boo xam ñëw benn facteur boo xam ne muy livernage qui vient war a dajeeg ñun encore mënuñu koo may duñ ko may lu bari ci moom moom mooy bëtt waaw donc hivernage bi mënuma ko may euh, mu bett ma wala su bëgg naa ko néewal néewal doole ba nga xam ne su ma bettee du ma tëree liggéey te am na nu mu neex bu neexee ba neex damay def 24 24 damay liggéey bu dégg bëccëg kon loolu yaakaar naa ne euh, foofu moom jarul ja jarul tiit jarul tiit ci ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk jarul tiit ci ñun ñii ñëw ndax ni nu àndee ba woon fi li mu wane mooy gaynde tam kon ñoom gàcce ngalam côté aspect technologie lu mën ko la ndax tey bâtiment intelligent la ñu ko dee ndax déjà yoo xam ne da ngeen ci eggee eggaguñ xam nga xam nga ki jël nga agsi rek gaaral sa oto rek moo la am moo jiitu la nga topp mu ne la loo bëgg fii am na fi loo fi loo fi soxla loo fi soxlawuloo boo ko jëlee yow yow yaa am am fii am na à zéro mètre de chez am na bata data center data center boobu bu ko amul woon ñun dañ koy obligé wuti parce que li ngay li ngay def ci sa ci say ci say say këyit ak ci say téere ak ni nga koy liggéeye ak ni muy doxee ba nit ki mën koo jariñoo loolu day laaj ay machines yu am doole dégg nga di nga dégg ñuy wax euh, machines yooyu nga xam ne moo moo cloud moo moo moo di nga dégg ñu koy wax yooyu foog moom ngay liggéey boo doxoon tey ba am ci sa biir liggéey sax ba installé ba noppi sax am loo xam dafa soxla serveur sur place koy créer ci biir cloud kon loolu fekk nañ fi déjà data center kon xam nga ba tey mel na ne bi ñu mënee architecte baa ngi ne kii nga ne kii nga ne daal di mel ni moom loolu mooy da ciy dugg amul xàjjaloo lii ba mu duggee fii rek la dugg ci li fi ne kon loolu yaakaar naa ne boo ko té bu ñu ci tiitul ci côté technologie ci li ñu fi fekk mënul doon lu ñuy tiit ci suñu côté. ndax bu ñu ko fi fekkul woon obligatoirement dañ koy wuti te su boobaa mën nga garanti ni la gën la ñuy def on vient de démarrer weeru shawal wi la ak Covid bi nga xam moo ci ne ak tey bi ñu defee plan ba nga xam dañ ne tey kat dañoo war a tàmbali tey plan yi génn ba yi dee 3D yi ngay gis ni ma ne du ma tàmbali lu tax ma ne dama fàtte ne am na plancher boo xam ne il me foo 1000 kilos au mètre carré. am naa beneen plancher boo xam ne il me faut cent kilo par mètre carré lële c'est des compactus rayon bi day dox comme ni nit di doxe donc kooku dañ koy waajal li ñu defoon ba mu jag gars yëpp dañoo tëjuwaat pendant une semaine téléphone sax boo leen ko woowee doo leen jot bi ñu ko bi ñu réglé loolu ba mu tegee ci yoon ci la ñuy soog a ñuy démarrer démarrage bi comme ni ma ko waxee woon rek philosophie bi mooy bu ñu la nee fukk. mook sëñ bi tere na la bu dem tëngee ñooy naayil kawaiba wal wax waxtasil inta dunna min hamin raddan laa taslam moytul eh, sa mbokk yi noonu góor ñi nan moytu seen mbokk bu ñu dee jàng baa ñu sàkk xam-xam loolu mooy bu ko jege bu bu nekkee tëngéej bul dem mbaaw kon foofu la ne kon dañuy gaaw a forcé muy dem duñu taxaw ba ba ci ba ci implantation bi sax dañuy am gain de parce que conducteur beeg euh, ingénieur de structure beeg ñi ñu àndal ñëpp le temps sax ñuy damm seen i angle ñun dañuy démarrer te te on sera jamais important porte à donc yaakaar naa ne kon loolu mooy délai bi yow nag bu fekkee dangay ngay wutal sëñ Tuubaa fu mu yem yow caag yow bu fekkoonte ne kii defar nañ ko ba mu yegg mën nañoo jàpp ne war nañ caa defaat lu koy lu koy woddaat lu toll ne liñ ci def kon amul njëg. buru màkka bi ko gars yi ne extension bii quel est mu ne xanaa ñu wër ba gis ku ko mën segam moom sàkk ak kii di nuyu jëwriñ sëñ Atou euh, di ko ndokkeel euh, di ko gërëm euh, moo ñi mu àndal ñëpp ci liggéey bi sant ko di ko ndokkeel ngir ñetti mbir bu njëkk bi mooy mooy yitte ji ndax bu ñu sëriñ bi boole liggéey bi ba léegi muy kër xaside yi ñu war ko tàmbali bis ba ndigal li jógee rek la ci nekk te mën naa seere loolu kon loolu yitte la ak pas-pas ñaareel ba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 barab bii kër xasida yi la day day dugganteeg bibliothèque bële ñuy ànd di mottalante ndax fële euh, moom bibliothèque la bu universitaire boo xam ne ci wàllu recherche euh, euh, gëstu ak ak ak ak yu mel noonu étudiants yi dafa mën di toog di mën di gëstoog yu mel noonu ci biir université bi loo loolu fay dana ko mën waaye fii nag moom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 ku liggéey dara ku ne danga ko signé bii mooy signature sëñ may gërëmaat sëñ Abdou Kam yi eh, moom tamit bi mu ñëwee fii xam naa sama nijaay la joo xam ne may ko ma soxna waaye fekk na ma fii moom it ne ma lu fi jafe ci yow ci yow la kon man taw feexi sëñ Muntaxa jiitu na ma fii sëñ Thierno mi li ma defal mun ma ko wax fii lettre de remerciement bi ma ko mujjee yónnee mi ngi fi sama oto kon ñu ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di Modou Mamoun Mboup doon conducteur des travaux li nga xam ne moo jëm ci wàllu projet këru xasida yi kon man ànd ak équipe bi nga xam ne bokk nañ ci ñoo xam ne ñoo ñi jiite liggéey bi. bu dee ci wàllu liggéey bi pour tënk rek dañuy gis ne am na loo xam ne université bi xëy na tàmbali nañ ko lu yàgg sëñ bi door a tudd li nga xam ne mooy këru xasida yi mu doon kon projet boo xam ne bokk na ci li nga xam ne dañ ko ci yokk loolu tamit bu dee ci wàllu étude liñ ci mën a wax sëñ Atou am ci leeral loo xam ne fekkoon nañ ay études sol yi ci bëri liggéey yooyu moo tax bi nu ñëwee ñun dañoo jël yi nga xam ne mooy document yi fi disponible woon mën cee basé wu mën a tàmbali suñu liggéey moo tax ñu gagné temps ci lu bari. mu dee ci wàllu conception bi bu dee idée bi xalaat bi idée bi kon ni ko sëñ Atou waxee léegi nga xam ne sëñ bi li mu junjoon mu doon këru xaside yi kon sëñ bi ci boppam moom moo définir li nga xam ne mooy argument de base bi kon sëñ Atou li mu wax léegi ci ci ci leeral. ne loolu moom moo tax a jóg kon bibliothèque bi kon bibliothèque këru xasida yi lépp lu jëm ci wàllu documentation ak ci wàllu gëstu ci wàllu conception yi buñ ko waxee rek xëy xëy na leeralu ko waaye en toute modestie daanaka xalaat yeeg gëstu bi conception bi idée yi ci forme yi lépp moom bokk na ci ñi nga xam ne moom ñooy initiateurs yi mu boole ko benn équipe boo xam ne xëy na dañ ko ci jàppale li nga xam ne architecture loolu mooy rolam dangay am sa projet am say idée moom nga wax ko ko mu concevoir la waaye moom daanaka architecte bi xëy na ci ay mise en forme leen ko jàppale waaye conception bi idée beeg lépp moom la bu dee ci wàllu étude technique yi tamit léegi nii ñu ngi ci doon jokkoo bari na ci ni ko suñu aatu leeralee léegi am na ci ay études yu ñu ci defoon wala ay plan yu njëkkoon concevoir mais ci ay recherche ak yi gëstu bokk na ci ñu jël en considération normes yi mujj yi ci wàllu bibliothèque nga xam ne ci charge yi charge d' exploitation yi dafay yegg léegi ci noonu moo xam ne da ngay moom léegi doon na ko mu jëm ci ay 1000 kilogrammes par mètre kon loolu ingénieur bi noonu waxtaanee léegi buñ ko doon xayma xëy na ñu jàpp ne bâtiment bi ci ñeenti niveau lay toll muy sous-sol bi rez-de-chaussée premier ak deuxième étage mais ingénieur bi bu koy xayma moom dalay wax ne booy def charge bi 1000 kilogrammes par mètre carré dafa mel ni da nga jël lu toll ak ñeenti bâtiment yoo teg ci benn niveau kon day mel ni ñun suñu bâtiment bu ñu ko doon xayma niveau bu ci nekk dafa méngóog lu toll ak ñeenti étage kon loolu études yi ci leen tolloon ba fi mu ne nii jot na li nga xam ne mooy plan yi yi nga xam ne mooy plan structure yi yi nga xam ne visé neen ko ci bureau de contrôle mu jaar fi mu war a jaar yëpp kon loolu moom moom fii leen toll itam nag ci wàll léegi li nga xam ne mooy mise en œuvre bi waaw kon daanaka ci résumé conception bi diggante yooyu yëpp dafa mel ni sëñ bi moom feeñal na ci boppam lépp ci li ñu waroon def ci juróom benn weer da nga naan ci weer lañ ko def li ñu waroon def ci ay études ay yooyu yëpp suñu borom tënk na ko boo xam ne xëy na plan yi lépp dajegul waaye lu daje rek dèjà xaaruñ ci dara ni mu ko doon waxee kon dinañ ci course la montre par rapport ak nawet bii ñu jëm nga xam ne équipe bi dynamisme beeg loolu itamit dafa feeñ ci liggéey bi aménagement installation chantier yi da ngay gis ne lépp rek dafa mel ni loo xam ne dañ ko gas mu sulli ko ci suuf si mu génn ndax gaawaay ak tegu ci yoon planification yi loolu ni mu ko waxee léegi mu mënuñu ci tëngu parce que da ci am yoo xam ne considération am peut-être étude bi yëpp mënul daje parce que diggante bi ko sëñ bi tuddee ak léegi bu ñu xoolee léegi diggante bi étude bi rek waroon na mën a jënd at wala ak at ak lu teg ñuy xalaat ci projet beeg yooyu waaye lépp da ngay gis koy anticiper ci wàllu xalaat fu mu ci war a jëm fu ne ñu tënk noo xam ne bu ñëwee rek dañuy adapté wu dem mais ci wàllu planification da ngay gis ne étude am na luñ ci luñ luñ ñu téye tuuti la ca des lépp nag dañuy adapté wu rek mais dañuy fexe moom moo doon daan tawaytu nga xam ne lépp dañ koy taxañ ci diggante bu gaaw incha allah mu gën a gaawee mën a ñëw inauguré projet bi ci barke sëñ Touba Mbacke loolu lépp tam dañuy gis ne contexte la waaye daf ñuy delloo si ci li nga xam ne mooy jamono sëñ Modou Moussa ci contexte yi gënoon jafe la tàmbale li nga xam ne mooy liggéey jumaa ji waaye lépp day daje dajeeg tawféex ñun moom dañuy bu ñuy xool dañuy gis ne ñun xëy na loolu contrainte la ci fii ñu toll mais tawféex la ñun gisuñu jafe-jafe yi sëñ baa ngi jàpp na lépp ñu ngi mën a lu luñ ci waral lu luñ ci làmb rek mu nooy nepp moom daal dëgg dëgg sant yàlla loolu moom gisaguñ ci benn gàllankoor barke borom Tuubaa